Maintenant, pourquoi l'USAID a des programmes Quand l'USAID met en œuvre sa collaboration avec l'État du Sénégal, donc, cette collaboration est mise en œuvre à travers un certain nombre de programmes donc, dans divers secteurs. Tout à l'heure, Mme Sangaré parlait de l'USAID EGO, qui est le bureau de croissance économique de l'USAID, à côté d'autres bureaux, comme le bureau de la santé, le bureau de l'éducation, etc. ce programme a été lancé en 2021 par le bureau de croissance économique de l'USAID en vue d'aider l'État du Sénégal sur deux axes, les questions entrepreneuriales et sur les questions de l'accès au capital, aux finances. C'est dans ce cadre, effectivement, que le développement des activités entrepreneuriales, que nous avons noué ce partenariat avec euh, Madame Donc, je profite de cette occasion pour la saluer, et à travers elle, saluer le président de la Chambre de commerce et saluer toute l'équipe de la Chambre de commerce qui est là aujourd'hui avec nous. saluer aussi les les formateurs qui sont là. Et saluer aussi monsieur le représentant de l'inspection du travail. Et avant de saluer les stars du jour, comme Madame Sangaré les a appelés tout à l'heure. je veux juste dire que ce ne sont pas les stars du jour, mais ce sont les stars de toujours. Les entrepreneurs. J'ai l'habitude de dire que s'il y a une pièce maîtresse dans toutes les actions que nous sommes en train de mener, ce sont les entrepreneurs. Parce que sans entrepreneurs, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de chambre de commerce, il n'y a pas de programme de l'USAID, il n'y a, rien. les entrepreneurs, vous êtes les stars de tous les jours. Donc euh, merci de nous avoir euh, gratifié de votre temps et d'être avec nous cet après-midi. je voudrais en quelques mots, Madame Sangaré, donc revenir sur euh, l'action de de l'USAID Entrepreneuriat et Investissement, comme je le disais tantôt, qui est un programme de, de l'USAID qui vise à développer l'entrepreneuriat sous deux composantes, la composante inspiration et sa composante d'amélioration des services. Et donc c'est dans ce cadre-là, surtout de cette deuxième composante-là, que nous avons noué le partenariat avec la Chambre de commerce. Et donc sur le partenariat avec la Chambre de commerce, Je veux juste dire que une tâche aussi importante, que celle d'apporter des services de qualité à des entrepreneurs qui sont appelés à être des capitaines d'industrie ou bien des champions en tout cas de demain, nous ne pouvions faire outre pour la région de Thiès que de travailler avec la Chambre de commerce. De par son historique en termes d'accompagnement du secteur privé, de par la qualité des services, n'est-ce pas, qui sont délivrés par votre équipe d'experts, les formateurs que vous avez en interne comme à l'externe, mais de par tout simplement votre historique à travailler avec les bailleurs tels que l'USAID, mais pas que. Vous avez parlé tout à l'heure de la GIZ. Tout à l'heure, on a vu d'autres programmes, d'autres pays, ou bien d'autres bailleurs européens. de l'Union européenne. Donc pour dire que le choix que l'USAID Entrepreneuriat et Investissement a fait de travailler avec la Chambre de commerce n'était pas un choix fait par hasard. C'était un choix motivé. Donc c'est important de le dire. Il est important pour le développement des entrepreneurs de leur fournir un service d'accompagnement de qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on revisite les besoins évoqués par les entrepreneurs dans le cadre du développement de leur entreprise, les besoins prioritaires qui sortent sont des besoins de financement. Or, l'expérience a montré que toutes les institutions de financement ou bien tous les acteurs de financement vous diront que l'une des raisons principales qui font qu'ils ne financent pas comme il se doit, bah, c'est que les entreprises ne sont pas prêtes. Les entreprises ne sont pas sur le plan technique, parce que la majeure partie des entreprises peuvent faire très bien le travail technique. Si c'est la transformation de, de l'arachide, les entreprises savent le faire. Si c'est la production de biens ou de services, les entreprises savent le faire. Mais ce que les entreprises ne savent pas bien faire, c'est comment gérer une entreprise. Et naturellement, toute institution financière a besoin de ces assurances-là avant de donner son argent à une entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, très opportun, de pouvoir contribuer à rehausser le niveau des entreprises en termes de gestion. Raison pour laquelle nous avons choisi la Chambre de commerce pour nous aider dans ce travail-là. Le parcours a été certes long, on parle de neuf modules, je crois que les formations ont démarré l'année dernière. je pense qu'il y a en termes de, de, de, de, discipline un fort engagement à noter auprès des entrepreneurs et qui est à saluer. Je rappelle que l'USAID a certes financé, mais l'USAID n'a pas tout financé. Pourquoi je dis que l'USAID n'a pas tout financé C'est un financement tripartite. L'USAID, à travers son programme, a supporté, a supporté une partie. La Chambre de commerce a supporté une partie de la formation, mais vous autres aussi, entrepreneurs, vous avez supporté une partie. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous avez quitté vos activités pour venir assister à la formation, Vous avez laissé vos activités, peut-être que c'est un chiffre d'affaires que vous avez laissé pour venir ici. Et, et ça, c'est valorisé à juste titre pour dire que c'est un financement tripartite. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que nous arrivons au terme de l'accompagnement par la Chambre de commerce sur les aspects de formation. Mais ça ne doit pas s'arrêter ici. Parce que si Avant d'avoir l'argent, on disait qu'il faut se former. Maintenant, quand on finit de se former, la question du financement est remise, remise sur la table. Et donc, c'est pourquoi j'étais heureux tout à l'heure d'entendre Madame Sangaré dire que il y a des perspectives avec les institutions de financement, notamment à travers le guichet unique de financement, mais aussi dire qu'il y a des perspectives avec l'USAID Entrepreneuriat et Investissement. Tout à l'heure, en présentant projet, je Le programme intervient à travers ces deux composantes, inspiration et amélioration de services de formation ou bien d'accompagnement. Avec ces deux composantes, le programme règle les questions de l'entrepreneuriat. Mais le nom du programme, c'est entrepreneuriat et investissement. Donc on a une autre composante, qui est la composante assurer ou bien améliorer l'accès au capital. Et donc le rôle de cette composante-là, c'est de prendre le relais après la formation est de s'assurer que toutes les entreprises qui sont éligibles, n'est-ce pas, seront aidées à décrocher un financement, que ce soit un financement bancaire, que ce soit un financement dans les institutions de microfinance, que ce soit un financement avec les fonds d'investissement ou bien avec des mécanismes que nous avons nous-mêmes développés en interne pour permettre un peu de, de nous inscrire sur toute la chaîne, pas seulement de l'accompagnement, mais de et d'appui à l'accès au financement. Donc c'est ça que je voulais dire en, en termes de perspective, pour dire qu'en collaboration toujours avec la Chambre de commerce, donc avec les collègues, nous allons continuer pour s'assurer qu'effectivement, nous allons être partenaires avec vous jusqu'au bout. Voilà. Je pense que Madame Sangaré, je tenais à, à, à rappeler cela. Et terminer euh, mon propos par euh, vous remercier encore, la Chambre de commerce, comme j'ai dit, pour les raisons euh, diverses euh, que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais euh, vous remercier pour votre engagement sans faille auprès des acteurs privés pour le développement non seulement de l'économie thiessoise, mais pour le développement du Sénégal tout entier. Donc voici en quelques mots euh, ce que je voulais dire à la suite des propos de Madame Sangaré. Et donc, euh, terminer par dire que euh, vous, les entrepreneurs, Vous êtes les stars de toujours. Merci beaucoup. ak élaboration du projet d'entreprise maanaam esquisse bi ak euh, la digitalisation euh, avec euh, et le management opérationnel aussi avec Jérôme pardon avec Sylvain mon frère qui est là vous avez fait la gestion financière avec Souleymane Thiam qui est là aussi donc le cadre légal et réglementaire mooy li ngeen def ak les greffiers bu euh, tribunalu Thiès bi le greffier maître Fall et maître Yankhoba Seydi euh, le développement le réseautage et développement national et international vous l'avez fait avec monsieur Ndoye la gestion des ressources humaines avec euh, l'inspection du travail de Thiès l'inspecteur monsieur Gaye et ses et ses collègues ensuite li ñu commencé te mu des mooy le suivi donc ça ça a été fait euh, ça au mois de novembre novembre décembre de l'année dernière la signature a été effective au mois de novembre formation yi démarré décembre euh, yeneen formation yi ñu continuer ko au en deux mille euh, vingt-trois ce qui fait que diggante ba ñuy signé convention bi ak USAID ak bi ñu démarré activité bi def na def na ay temps donc ça accuse un peu de retard diggante bi ñu defee euh, le premier les premiers modules ak bi ñu koy yeggali aussi y a eu trois mois de battement yoo xam ne je pense qu'on a mois de mars te diggante ndox en principe contrat bi mu ngi doon jeex mois de mars ñu prolongé ñu ba mai mais dañu obligé quand je faisais l'avant-dernier rapport demander un avenant pour ñu prolonger ñu ko ba le 15 juin ce qui fait que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des de formation concomitantes temps bi jour bi Tivaouane di def benn module même jour bi Mbour mu ngi def beneen module même jour bi Thiès mu ngi def beneen module groupe 1 après mu tourné et nous nous sommes rendus compte que suñ ko teeloon def ça aurait permis de de lever quelques contraintes que nous avons et que nous avons signalées dans le dans les certes formation yooyu xariñ na leen parce que management opérationnel tax na ba euh, pardon euh, leadership bi tax na ba ku si nekk nga gën a defaraat sa taxawaay en tant que chef d'entreprise ak sa toogaay. Euh, stratégie d' entreprise tax na ba ko nekk nga soo ko amul woon nga adopté ko soo ko soo ko nga soo soo ko amoon nga gën ko defar euh, projet bi ku nekk am nga tënk nga à peu si barewul mais lu mu néew néew néew sa idée de projet boo xam ne après soo ñu approché ñun ñoo koy yeggale au moins am nga idée boo xam ne yow bu fa yoon booy jaar ba yokk si liggéey liggéey ah management opérationnel bi ak euh, Jérôme tax na ba ngeen xam seen gestion administrative au sein de vos entreprises gestion financière bi ak monsieur yaakaar naa ne dans son rapport j'ai vu qu'il a remis des outils pratiquement euh, Siscoada bi yëpp jox na leen ko ak euh, ay outils la mise en œuvre dina tax ba tey dinañ mën a am visibilité si seen dugal ak seeni i génne ak leen dese seen i cash seen capacité de financement ba dinañu mën a jàppale pour que ngeen mën a accéder si financement parce que suñu wax financement financement yu tuuti taxul ñuy wax ndax financement yu tuuti dafay sonal borom financement pour mu am njëriñ dafay rëy dafay bare nga mën a investir lu bare mën a génne lu bare di nga fay lu bare mais di nga dese lu bare te def naa looloo ëpp njëriñ ndax xam nañ ne que weer ak weer gaaw na échange gaaw na financement bi néewee nga bëgg si am bénéfice li nga financé bëgg si génne même pas 20 pour cent bëgg fay bor bi bëgg dem bëgg rouler coono leen di gën a indi donc loolu moo tax ba mu am njëriñ euh, cadre juridique et réglementaire xam ngeen bari statut moo gën si yéen ñi amoon entreprise individuelle xam nañu suñu bëggee yokk fan la ñuy jaar ba yokk ñi amul leneen aussi xam nañ fañ la ñuy jaar ba yokk parce que aussi ku eh, bëgg lu rëy da ngay def lu rëy te nit ki aussi da am dépassement xëy na bi ngay créer entreprise ci ndum nga amoon bu yem mais am na foo xam ne soo fa tolloo mbaa soo fa bëggee toll foog nga ibbeeku foog nga change si loolu loolu jàng nañ leen ko avec des greffes côté fiscalité bi aussi dugg nañ si greffes yi defe naa su ma juumalee ku nekk nga mun a xam au moins yow lu luy sa wareef ak sa yelleef sa diggante ak fiscalité yi di la permettre aussi nga mën a accéder au marché public et au marché privé réseautage national et international avec monsieur Ndoye tax na ngeen xam fan ngeen di atteindre seen i tentacule ndax ngeen moo def ba yokku ba ba am ba am ay partenaires yu bees ba mën a réseauté wu au niveau local national et au niveau et les autres partenaires également qui sont sur la table, euh, mais également les pères formateurs qui sont là. Ñu ko jógee ñu nuyu également l'assemblée qui est constituée de chefs d'entreprise donc témoignage bi mu si njëkk a def balaa may si avancer tuuti li may ñëw xawoon naa am tuuti impression que yore que des jeunes j'ai trouvé des personnes un peu âgées et à surprise quand j'ai vu que autant pour les jeunes, autant pour les personnes un peu âgées, qu'il y avait de la volonté, il y avait de, de l'ambition. Euh, mën nañu bëgg xam parce que bi may euh, récemment am na formation yu ma su subir en tant que jeune j'avais du mal à compléter ces formations là vu mes activités et autres mais vous quand même que ça soit Thiès que am na lu lu baax am na lu ñu jot seetlu mooy yëg-yëg ak bëgg-bëgg bi ngeen def si convention bi te dafa am benn tubaab bu ñu woowee François Pérou daf ne la combinaison de changements mentaux et sociaux ah, loolu c'est très important la a parlé de changements mentaux après mu wax sociaux sociaux waaye tali yaa yu gën xamul mais changement mentaux daf si bokk formation nga formé sa bopp nga xam li nga war a xam donc développement bi foofu lay commencer raison pour laquelle euh, aujourd'hui euh, ça a été très très très important que ngeen au préalable balaa ngeen di développer si ñeneen activité wala balaa ngeen di yokk seen activité mu am loo xamante ne le minimum lu ngeen war a xam ngeen euh, def si ay jàngat ñu nàmpatal leen si dina tax mu gën a yombal seen yoon gën a yombal seen ay tànk donc raison pour laquelle formation bi ça vient am voilà ñun en tout cas man maa ngi tudd Jean-François Silva je suis formateur depuis plus d'une vingtaine d'années donc ça fait vingt ans yoo xam ne si formation lay gëstu donc je suis formateur ci ay université mais aussi formateur des adultes donc fii euh, chambre de commerce euh, transformation digitale des entreprises moo doon matière bi nga xam ne ci laa leen doon non pas formé mais gunge euh, comme ni ko inspecteur des impo waxee ñun suñu objectif bi ñu fiy ñëw inspecteur du travail euh, bi ñu fi ñëw ñun suñu objectif du woon ñëw jàngal leen mais sottante xalaat la woon parce que comme ni mu ko waxee euh, gis nañ fi ñoo xam ne ñu bëri expérience yi ñun ñu développé peut-être si suñu ay euh, euh, matière de prédilection yenn expérience yooyu ngeen développé si seeni entreprise du ma ne sax ambition mais li ñu fi gis ñun c'était beaucoup d'engagement ñu leen di ñaax ngeen continuer ci engagement boobu parce que engagement boobu mooy tax ngeen mën a euh, eggal seeni entreprise fii ngeen bëgg ñi egg donc engagement boobu c'est c'est un engagement d'abord envers seen entreprise entreprise mooy financement yi ngeen di jot ñii di liggéey ak ñeen euh, seen statut juridique seen organisation ba ci seen transformation digitale donc premier engagement boobu ngeen war a raffermir mooy envers votre entreprise deuxième engagement bi ngeen war a raffermir mooy cinq engagement envers la chambre de commerce parce que yéen vous êtes peut-être des gens qui ñoo xam ne vous avez profité en tant que opérateur économique de ay formation yoo xam ne chambre de commerce moo leen ko may mais pour ngeen mën a continuer am formation yooyu il faut que vous soyez des membres de la chambre de commerce c'est extrêmement important si biir formation yi man chaque fois je vous le disais il faut que au sortir des formations aussi que mu am une adhésion forte un engagement bu gën a fort de votre part envers la chambre de commerce pour que suivi bi chambre de commerce bëgg def ñu mën ko continuer parce que la formation c'est une part mais pour que ñu mën a am ay euh, résultats yu probants il faut vraiment qu'on puisse assurer le suivi mais on ne peut suivre que des entreprises qui sont engagées ku fi ne la ñu mën a accompagner mais ku fi newul kenn du la mën a accompagner en tout cas ñi leen di remercier man pour ma part je vous remercie parce que euh, li ma jàng ak yéen man yàgg naa former mais dam koy wax euh, à l'équipe de Thiès chaque fois que on sort d'un groupe ñun en tant que formateur day renforcer aussi suñuy expérience chaque fois parce que group groupe boo formé y avait quatre groupes mais groupe bu ci ne bokkul ak moromam et ñun dañ ci jëlee euh, une expérience supplémentaire boo xam ne demain suñu confier yeneen groupe li ñu jàng ak yéen dinañ leen ko mës mën a aussi trans transférer jàng ci ñoom loo xam ne dinañ ko mën a aussi transférer ñeneen en tout cas man pour ma part je reste euh, ouvert à un accompagnement su fekkee am na ñoo xam ne vraiment ils veulent aller un peu plus loin dans l'accompagnement euh, digital de la transformation digitale ñun on est prêt vraiment à à travailler avec eux même si aujourd'hui on est arrivé avec vous ku ci am boutique digitale sur la plateforme euh, boutique 221 ñuy remercier aussi parce que c'était un partenaire important avec lequel nous avons travaillé ainsi que nos partenaires de Gaïndé yi nga xam ne ñu permettre ñu mën a am un accès plus facile aussi à la plateforme de donc vraiment s'il y a un accompagnement aujourd'hui du point de vue de la transformation digitale genre euh, en tout cas jege leen chambre de commerce et puis ensemble mun nañu bâtir un accompagnement par rapport à à cela merci. maa yoroon partie finance comptabilité donc euh, vraiment c'est une grande joie de gisaat leen fii xolaat kanam yi vraiment ba ngay nekk si ba fii kon comme ni ko madame Sankara waxee. Euh, vous avez fait le parcours te tubaab ba dafa doon wax euh, je pense donc je suis mais ñun en tant que gestionnaire pour résumer un peu sama mbokk njaago bi ñu wax léegi dañ naan je m'investis je suis maanaam li ñu leen jàngal yëpp da ngeen ciy nekk ambition yi comme l'a di le monsieur de l'USAID focus développement Sénégal dafay développé par force kooku mënuñu ci dara kuy développé nag ñun la ñun mooy yéen ça je vous le disais dans les formations première partie bi ñuy def mooy lu tax entreprise war a nekk ci société vous vous souvenez de ça yéen a koy société bi yëpp entreprise la docteur bi li muy li muy def lu baax yëpp entreprise la ndax dañ koy fay maanaam ci parti boobu ñiy defar ay produits ñuy defar ay machine tous les acteurs ñoo koy constitué donc il faut garder ce cette vision là être vraiment toujours ambitieux ku ci am taabalu defar gerte gëmal ne da bëgg am usine buy defar gerte d'accord donc cheminement la d'où ces formations yi ñuy def fii et comme le dit souvent la chambre de commerce les appliquer au maximum appliquer parce que xam-xam la yeneen dëkk yi développé xam-xam la ñuy jëfe te fii yooyu yëpp boo leen ko seetloo am nañ ko fi suñu mag yi dañu naan jëf rek a takku ñàkk jëriñoo tous ces trucs ñuy wax mais ñu ngi ci donc il faut et de dedans et s'organiser comme le disait tout de suite monsieur Silva par rapport à la chambre de commerce la chambre de commerce du madame Sankhare du président yéen acteurs yi la yéenee mën a dem ba nekk benn syndicat de patronat ok y a des CNP tout ça mais ñooñu dañ fi nekkoon am seen fulla def seen yëf donc il faut continuer dans ce sens là et puis par rapport à vos produits exigez-vous de la qualité ok je vous ai distribué benn esquisse de manuel de qualité lire leen ko bu doyul ngeen dolli ko xam ngeen yoon bi allez-y man bi ma xoolee léegi dañu produire fii ci écran bi j'étais vraiment impressionné maa ngi ko naan wax léegi monsieur Silva man ne ko xoolal lii donc am na beneen axe boo xam ne fi mu nekk nii war na ci mën a dugg muy vraiment la comment s'appelle le côté marketing de nos produits ah dem ba nga xam ne on les euh, den produire de façon euh, euh, industrielle il faut viser ça nañu nekk de bon bons sénégalais dépasser ay affaire ay yu sew sewaan yi yooyu amul benn njëriñ d'accord il faut augmenter vos ambitions man yéen ñëpp gis naa leen seen liggéey ci biir formation yi ñi defar ay dàll ñi defar ay lekk yu neex mais ay ngan ngeen dog leen di yëgg ok bu leen bàyyi seen loxo ni ngeen demee yéen seen kanam ñi nekk seen ginnaaw noonu la ñuy ñëwaatee ngeen former leen ñu former leen def benn ngandi réseau c'est pour le Sénégal all kon boo foofu laa bëggoon ñëw merci yal na leen yàlla jàppale maa ngi tudd Babacar Gueye je chef d'entreprise maa ngi nuyu chef d'entreprise yi nekk fii yëpp euh, di euh, beneen nuyoo waa chambre de commerce soo gisee ma beral leen mooy que Euh, man dama yor entreprise de confection moom laa démarré quoi depuis yàgg na depuis 96 ah. donc di euh, yàgg liggéey ak ñoom ci ay programme te ñu yàgg ma encadré lu jiitu madame Sankaré nekk fi mais dañu gis évolution boo xamee ne que ñoom ci seen encadrement muy évolution bu bu bu am solo ci ñun ñi man de wax dëgg yàlla man tey jii sañ naa taxaw ni produit chambre de commerce la parce que def nañ lu bari bari bari ci man ci wàllu encadrement ñu bari ma xam xam nañ ni lépp loo xamee ne am naa ko ci connaissance ay renforcement de capacité lépp lu bari lu ma am ci xam-xam ginnaaw yàlla euh, euh, ci ñoom la. donc euh, occasion la pour man ma remercier leen di wax ni tamit programme yu mel nii am na solo lool muy que chef d'entreprise bi amul jot mais tamit il faut que ñu nangoo di partager suñu bi atelier yi. xam ngeen souvent dañuy wax ni que man a ah, man kat pour ma bàyyi sama atelier dem def formation dina compliqué mais essayons de voir comme que entreprise moom équipe la ñu xool ci biir fekkee ni euh, mënuloo dem mais essayer de déléguer quelqu'un koo xamee nekk jege na la mu dem teew la ci formation boobu alors connaissance boobu muy indi su indee mu partage ak ak ak ak ak équipe bi quoi comme je donne un exemple sama soxna laa la envoyé moom damay liggéey ak moom sama entreprise la nekk donc moom moo ñëw suivre formation bi yëpp bien vrai que ni euh, xam naa ni moom tamit jot bi mayu ko ko mais ñëw na tey bi mu ci engagé woo gis naa volonté bi mu ci am quoi donc loolu moo tax ma ni woon dinaa attirer attention yi ñëpp pour ko ñu fexee que ñuy jéem di partager genre atelier yi mel nii pour man absence bi mën na ñàkk. bu fekkee gis nga ne mënoo loo cible formation bi yëpp mais essayer délégué cours disponible ci sa ci sa entreprise pour que mu ñëw ñëw cible ko donc je tenais à vous dire sax et di gërëm yëpp di euh, di féliciter ñi ñi ñi am ñi war a jox seen attestation aujourd'hui noo ngi nuyu mbooloo mi yëpp di di jiital ci mbooloo mi monsieur Soumaré mi jiite délégation USAID waaye nag di jaareel nuyoo boobu ci soxna Sangaré mu teg ko ci loxo président ak mboolem waa chambre de commerce cant gi mën naa ne kenn kese ci nun ñi mënoon na koo def mu doy waaye nag cant gi dafa rëy ci sunuy xol ba gëm naa ne kenn ku ne bëggoon na jël kàddu tey wax kon ku wax rekk waxal na moroomam dañuy sant ci anam yu baree bari bi ci njëkk mooy wërsëg wi yàlla def ba nu bokk ci ñi nga xam ne tànn nañ ñu yàlla wërsëgal ñu mën a mottali suñuy kàddu ba fekkee maanaam juróom-ñeent euh, ñaar fukki euh, bis yëpp ba def juróom-ñeenti module yi loolu noo ngi sant yàlla li ñu fi jëlee kenn ku ne ci nun ñi fi teew xam nga ne fi nit di jëlee xalaatam pour liggéey nas ko ba teg li ñuy wooyee mën a wooyee modèle économique mobiliser ay moyen ci biir benn business plan ba tàmbali liggéeyam ndekete yoo foofu la liggéey ba tàmbalee moo ne moo xam Amérique la nekk moo xam fu mën ni nekk tey yàlla baaxee na doomu aadama ba mu mën a jooxe loolee te du gisante sax kam koy defal kon li ñu njëkk sant yàlla mooy ni mu ubbee suñuy gët ci digitalisation la ca tege muy monsieur Thiam muy gestion financière mise en place d'un système comptable wax dëgg yàlla man de euh, chef mën naa ne chef de département la woon fii ci biir Thiès géré naa le secteur alphabétisation pendant presque quarante ans yor ay classe di ko dënale ci département bi di jàngal jigéen ñi xale yi à travers les langues nationales des itinéraires technique di gérer donc je dis bien un département di yor ay budget mais ni ñu ubbee suma gët ci dëgg-dëgg système comptable daf ma won ne ndekete man j'étais dans le désert wax naa ko tey ci suba j'étais dans le désert waaye nag loolu lépp suma ma tënkee xam-xam la laaj xaalis la laaj kon dañuy dellu si encore tàllal loxo wax na ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu ci ubbil suñuy gët il est heureux que monsieur Silwa wax ko déjà joxe engagement am te xam naa ne engagement mooy engagement mboolem formateur yi ne taxaw nañu pour accompagner entrepreneurs yi kon loolu c'est pas tombé dans l'oreille donc sourd bu soobee yàlla danañu gën a fabu à travers la digitalisation à travers la mise en place d'un système comptable fiable kenn ku ne xam fi ngay teg sa tànk ba too ko ba doo ko teg ci bànqaas bu fënax ndax booy yëkkat loo sori sori kaw boo tegee sa tànk ci bànqaas bu fënëx ci suuf nga jëm kon monsieur Soumaré ñoo ngi lay doolee tàllal loxo di la ñaan ne serait-ce ñaari module yooyu nga jàppale ñu ci biir euh, alal juñ ci mën a dugal ndax si beaucoup de fonds di nuyu nag chambre de commerce bu baax a baax ndax su ma waxee ni man chambre de commerce depuis 2004 maa ngi ak ñoom lu bari lu ma xam maa ngi woon ci organisation de femmes mais lu bari lu ma xam fii laa ko xamee te bi ma ko xamee tamit maa ngi ko doon restituer ci yeneen nit ñi ba ñu xam chambre de commerce kon jaaraama chambre de commerce di ci eh, rek ñaanalaale góor gu baax muy Pa Atou Ndiaye parce que fii laa ko fekkoon bi ma ñëwee suñu frère ñëw aussi ñu nekk fi ak moom fekk fi nag notre sœur madame Sangaré Oumy Thiam xam nga ñun dañuy jigéen jàppale sa moroomu jigéen moo gën a yomb ndax fii dama naan rek suñu kër la lépp luñ fi soxla ci information lépp loo xamante ni dafay doxal entreprise même sur le volet social xame nañ ko fii ci chambre de commerce donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax di dellu si nag di am contentement monsieur Soumaré waa USAID aussi parce que offrir ngeen ñu benn opportunité ñun ñëpp fii toog wax nañ ko léegi mais defe naa ni dañu wax ni ñun dañ doon échange ak ñoom mais jàngal nañ ñu lu bari tamit. parce que soo waxee inspecteur du travail ñëw toog ak ay entrepreneur loolu defe naa ni bariwul lu muy am de ah defe naa mën nañu ko seedeel de inspecteur du travail ñëw. ñu xool naka la ñuy toogee ak ci suñu entreprise ñun ci suñu bopp sax nga xam ne dañu war a fay suñu bopp salaire duñ ko def duñ ko duñ ko def te jàngal nañu ko foofu wax nañ ko ba ñu xam ko loolu aussi defe naa lu am solo la. jafe-jafe yi nga xamante ne aussi dañ koy am entre personnel bi nga xam ni ñu koy yor te niñ leen di yore yaakaar ni rek boo fayee nit ki rek bu liggéeyee ba wàcc nga fay ko yor yorin bi rafet la fekk na am na lu des. parce que dugal nañ ci caisse de sécurité sociale dugal nañ ci IPRES dugal nañu aussi balaa ngay euh, employé nit lan ngay def ak moom entretien wax ak moom ba xam ni ngay def ak moom kon jaaraama aussi inspecteur du travail. sur la digitalisation monsieur Silva boutique 221 <laughs> moi je crois que ñëpp ci kontaan parce que parce que ku ci nekk gis nga sa bopp aussi aussitôt bi mu ñu defalee cours bi rek ñëpp pratiquement inscrit nañ ci boutique bi di ci participer. te mu jël ay engagement aussi nii dafa des ak ñun moom bu lu ñu soxla rek mën nañ ko oo comme ça mu gën ñu gunge suñu frère mi ngi toog aussi Souleymane Thiam ah moom tamit yaakaar naa sur la gestion comptable ah leeral na lu bari de leeral na lu bari parce que ñun dañuy jaawale trésorerie yi ak comptabilité de <laughs> te loolu leeral nañ ko yaakaar naa ni am na solo lool donc kontaan nañ ci développement personnel aussi ak leadership indi na ci ñun lu baree bari vraiment daal su may lim liñ fi jaar ci neuf modules yi am nañ jëli nañ fa xam-xam bu am solo boo xamante ni ñun engagement bi ñu jël sa bi ñu nekkee foofu ku ci nekk yaa ngi naan su ma demee de naa defaraat sama toogukaay ndax li ñu nekkee woon xëy na ñàkk xam la wala yaakaar ni eh, noonu rek la war a mën a demee mais jële nañu fa lu baree bari donc ñu ngi ciy am contentement lool di nag remercier participants yi ma bokkaloon foofu yëpp vraiment on a été bien accueillis à ba Ndiaye par le vice-président le maire suñu frère assan Ndiaye boole njaayeen yi xam nga bu tasee ak si yéen dafay neex parce que njaayeen yi bu ñu xëyee rek indi njóobeen yi daje fa vraiment ci benn ambiance macha allah donc ñu ngi leen di kontaan di remercier aussi chambre de commerce ñu ñu booleeloon ñu ñu àndaloon parce que Pape Diop mi ngi woon ci biir euh, madame Traoré aussi mi ngi doon ñëw vraiment daal euh, santir nañ suñu bopp si mbir mi xam ne ñun ñoo ko moom maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. maa ngi tudd aadama Diouf dëkk commune Diass dëkk bi ñuy wax dàgg Jalaaw présidente GIE takku liggéey dàgg Jalaaw vraiment comme ni ngeen ko waxee dama kontaan. salle bi nag yàgg naa di fi ñëw lool parce que nee naa leen man bi ma nekk présidente ak léegi ñaar fukki at la ak ñaar kon yaakaar naa am naa place yu bari yoo xam ne dem naa ko gannaaw ba ma sant yàlla sant samay waajur sant naa ñi nga xam ne ñoo ma teg ci place ba ndax xëy na bu ñu takkuloon lool ñu jàpp ci lool xëy na yooyu yëpp duma ci fekk ba ma mën a dem fu ne fu lu bëri sante ko itam suñu maire bii tey muy Mamadou njoon bi mu nekkee DG COSEC moom a jëkk a yëkkati yóbbu ma France ma jaay suñu produit yi bi muy ñaari yoon ak yeneen ak yeneen kon nag wax dëgg yàlla ñii santa nañ leen gërëm nañ leen yéen seen wane bi aw na yoon jaar na yoon kontaan nañ ci parce que am na mën na am nit ki doo mën a xam lépp doo mën a am lépp waaye am na côté yoo xam ne boo si jaaree da ngay am sa mbégte te mooy loolu suñu formateurs yi kontaan naa ci ñoom lool Aziz moom kontaan naa ci moom lool soxna si wax dëgg yàlla yéen ñëpp xam naa ku lim juum ndax formation bi doon na neex lool doon na xumbal lool Keita moom di ko xumbal rek kon nag yàlla nañu yàlla defal jàmm di ñu séentu ci lii tam ñu mën koo am muy financement yi parce que li ñu gën li ñu gën a sonnal la financement noo nekk ci lenn te mënoo am financement yoo xam ne mën naa tax nga taxawu ci lu baax am na yu bëri am na yu bëri nag yiñ ci xam bu baax a baax mais mën nañ ci jaaraat toppa ko xam nu ñuy demee ak nu ñu dul demee kon nag ya a ngeen jëfati ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu monsieur euh, Soumaré bi fi représenté waa USAID di nuyu madame Sangaré ak sunu coach yi toog ci table bi man nag euh, damay gàttal parce que li ñu bëggoon a wax lépp sëñ Fall Malick Fall waxal nañu ko ndaxte ñun ñoo bokkoon groupe de formation may remercier vraiment waa chambre de commerce spécialement madame Sankaré ndax euh, man ci secteur événementiel bi laa nekk man leen jëloon comme modèle femme entrepreneur la 8 mars bi ma koy rafetlu bu baax parce que madame Sangaré lépp lu jëm ci prestation de service mu ni woo leen Avenir Events Aminata Gueye ba ci chambre de notaire man maa defoon seen man maa assuré woon seen couverture bi ma koy rafetlu bu baax a baax di ko ci remercier de passage parce que lu xew cees jaar chambre de commerce mu ni contacter leen Avenir Events loolu motivation la encouragement la USAID aussi suñu xoolee formation bi ni ngeen expliquer mu nekk loo xam ne dañ ko waroon a fay te effectivement parce que ça vaut des million su jaroon fay ñun tey dañuy taxaw fay parce que en tant que chef d'entreprise ndax di liggéey aussi nga xam nan ngay formaliser woo et tout ça xam naka ngay gérer sa personnel naka ngay gérer sa comptabilité entreprise am na solo te gis nañ ki sunu bopp te am na un pas d'avancement bu mag bu mu def ci ñun macha allah ñu ciy remercier waa USAID bu baax a baax a baax euh, def nañ ko ci jàmm ak salaam on a suivi les neuf modules macha allah les encadreurs tamit euh, euh, étaient très ouverts à question questions accompagné nañu du début jusqu'à la fin remettre nañu seen contact yi pour euh, problème bu nu am ñu contacter leen ma leen ci remercier di remercier ñëpp di remercier ñi ma bokkaloon formation bi di xaar nag di xaar di xaar financement yi parce que soxla nañ ko ñëpp loolu lañ wax c'est vrai nag que nit <laughs> c'est vrai nag que nit balaa nga ko financer da nga koy former ba pare loolu moom sur le principe je suis d'accord mais soxla nañ des accompagnements parce que duñu ay petite petite entreprise des moyennes entreprises lan tey am na un pas de départ bu ñu def soxla nañ ku ñu accompagner bu baax a baax ba fi ñu bëgg a egg ñu egg fa macha allah suñu borom jëmale ñu ci kan. bon foog naa ni nit ñi moom ñu fi nekk yëpp après des moment de dure la labeur dinañ soxla détente soxla defar seen yaram ressourcé waat quoi defaraat seen yaram bu baax <laughs> donc may remercier d'abord. waa chambre de commerce ñi ma may man la possibilité je suis une novice dans ce domaine man chambre de commerce dama jàppee woon rek ni ne yaa registre de commerce j'étais limitée à ça ma fi teg les pieds ba ma commencé ba ma démarré sama entreprise ñu ut samay kayit après dama dem pour man sa se limiter à ça donc un jour vous m'avez appelé je sais pas sur directive de qui mais j'ai été j'ai été contactée et c'est c'était ce fut un plaisir ma ñëw man dama gëm ni nit da ngay jàng pour avancer j'ai toujours été dans des hein voilà j'ai toujours aimé être dans des formations pas du bi ma nekkee entrepreneur defuma ko parce que j'ai pas j'ai démarré il y a pas longtemps en 2022 donc ça c'est une grande première pour man et j'ai vu que bi ma démarré ak bi ma commencé formation bi j'ai progressé dans l'organisation dans les échanges dans tout ce que je fais j'ai plus d'assurance quoi d'autant plus que tamit côté impôt dama ko mosoon ragal avant may def euh, formation et tout je me suis toujours dit que impôt xam nga dafa raglu affaire yooyu mais j'ai su que après il faut aller vers l'information il faut s'affirmer et ça je l'ai eu grâce à cette formation que j'ai faite avec des coachs vraiment rien à dire sur vous que ni ça très bien passé vous nous avez très bien formés USAID ñu leen di remercier bu ngeen di joxee la possibilité de faire une formation sans payer un franc kooku c'est important Donc, nous les remercier et moi, je suis toujours disposée peut-être à être dans des formations au niveau de la chambre de commerce. Ça aide toujours. Ça aide toujours. Mais remercier <laughs> di leen wax merci beaucoup. Je remercier tout le, toutes les personnes présentes, les chefs d'entreprise, Yubaï Senlep. Nous fait que c'est très, très, très important. Nous avons ku ne ci turam ak santam. di leen ziyaare di leen balu àq di leen baal àq bu baax a baax ci tabaski gii ñu jóge xëy na kàddu yu ci bari wax nañ ko duma ci dellu mais ay kàddu remerciement mënul ñàkk parce que chambre de commerce bu ñu xoolee région yi ci Sénégal yëpp dañu am seeni chambre de commerce mais bu Thiès moom vraiment gàcce ngaalaama parce que li taxoon vraiment ñu samp ko mi ngi koy doxal ak kéemtalaay kàttanam mooy fexe ba jàppale les entreprises ci F yi nga xamante ni mënul ñàkk muy la formalisation l' à la finance au financement ak li nga xamante ni vraiment mooy formation donc ef yi vraiment mënul ñàkk ci entreprise te vraiment ñi ngi ci def seen jéego kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla lu ngeen man ren bu déwénee ngeen mel lu ko ëpp man nag vraiment war na maa sant parce que c'est pas la première fois toogoon naa fii après euh, post Covid vraiment ñu jàppale woon ma ci sama entreprise booba transformation laa doon def tey nag vraiment maa ngi ci mbay mi mais aussi maa ngi ci transformation bi kon dañuy sant yàlla formation yi nag pour man aussi commencé naa am ses fruits parce que déjà bi ma ko commencé ci neuf modules yi avant muy jeex samay entreprise de formation am na certification certification ISO 2000 te loolu yombul parce que dañuy jël produit bi parce que dañuy jël produit bi dem yóbbu ko testé ko ci laboratoire yi xool te ci biir formation dama cee jàng hygiène jàng ci ni nga xamante ni ñoom la ñu war a yore personnel bi jàng ci aussi kenn ku nekk war a respecter sa morom mais ma jàng ci comptabilité tey jënd naa sama ordinateur ma nga fa incha allah ma ngi ci processus su benn xale boo xamante ni daf koy daf may daf ma ciy jàppale. donc vraiment commencé naa am ay fruits te te déjà ñu ngi soog a jeexal formation bi may ñaax nag vraiment ñun entreprise yi may ñaax bu baax di ñaax sama bopp di ñaax le but de l'éducation c'est pas le savoir l'action. nit ki bu ñu la jàngalee nga am xam-xam da ko war a jëfe parce que mooy tax nga am njariñ donc bu yoo xamante ni danga ànd ak koo xamante ni dafa taxaw pour jàppale la lépp loo xalaat lépp loo bëgg ci lu jëmale sa entreprise kanam boo demee ñëwee Thiès dem fii amul am na ku lay booleel pour mu jàppale la kon loolu jafe na kon nañ ko nañ ko nañu am nañu sotee ci occasion bi bi ci des aussi nag may remercier ñi ma bokkaloon groupe ay nit ñu baax nit ñu ouvert nit ñu nangoo partagé te loolu aussi dafa am solo di remercier aussi xale yi ngeen nu booleel muy monsieur Diop ak madame Tra ñu yaru ñu baax ñoo xamante ni respecté nañu nit te loolu aussi dafa am solo. di beral nuyoo partenaires yi ku mel ni USAID ak euh, chambre de commerce bi waral tey ji ndaje bi di nuyu mboolemu formateur yi fi teew tey di beral nuyoo nag madame Sangaré parce que c'est pas une première fois ñu fiy ñëw maa ngi tudd Marème Ndiaye di fi teewal tey agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. maanaam ANPEJ d'abord di leen féliciter ci taxawaay bi parce que c'est vrai que nii chef d'entreprise nekk ko yomb na mais xëj na li mu laaj du ñëpp ñoo ko xam wala du ñoo ci am euh, conscience donc euh, ñu leen ñuy rafetlu bu baax bés bu ni mel di féliciter aussi récipiendaires yi parce que yombul nga bàyyi sa yitte bàyyi sa lépp néew teewale teewee formation bi donc li ñu leen di ñaax rek mooy ngeen bu ngeen yeggee incha allah ngeen jëfee lépp li nga xam ne tey jëlee ngeen ko fi ci jàngat ci xam-xam incha allah di leen xamal ni leen aussi ANPEJ mu ngi leen di tijjil buntam ci lépp luy wàllum accompagnement ba ci bu ngeen soxlaa tey jii ndaw yu nga xam ne ñu ngi liggéey pour yéen aussi mën nañ leen ci gunge incha rab rabbi di leen euh, jaajëfal bu baax du ma guddal merci beaucoup. fa ànd ak Ibrahima Keita mi ngi ne taxaw mu ñëw def formation installé wu ay wut fa suuf euh, ñu boole ko ak man mu def ma tuteur def ma papa bi ma waxee euh, journée bi ma ne ko bàyyil ñu àdd li ma fa dégg nag euh, mu neex ma lool balaa may sori ma gërëm sant USAID gërëm sant waa chambre de commerce les formateurs inspection du travail Euh, yaakaar naa formation bi ni ngeen ko defee c'est très complet nga xam ne euh, fii wax dëgg yàlla ku ñu formé indil la euh, ñi nga xam ne ñoo war a participer ci sa encadrement yëpp boo paree war nga mën a dem kon nag dama leen di ñaax di leen féliciter abor di leen ñaax alors di di leen encourager bu baax a baax a baax fi ngeen jaar noonu la nit ki mënoo yaakaar naa Malick bële wax ak lu mu gàtt gàtt rek Euh, presque waxaale na ñëpp koo jox euh, am nañu bëri am nañ xaalis am nañu bëri am nañ moyen mais dañuy dem ba si yàgg mu nax saay parce que euh, formation bi ñu waroon am amuñu ko surtout nag formation en gestion financière gestion comptable boobu boo leen ko deful rek dafay dafay am nu ma demee kon li ma bëgg a wax mooy en tant que maire aussi parce que man toujours dama politique de développement laa xam euh, te man dama dama jàpp ne ba léegi sax jeunes yi ak population sénégalaise dañu desee xam chambre de commerce waaw chambre de commerce aussi rôle état foofu aussi war leen a gën a euh, gën gën a jàppale euh, parce que li ngeen di def ci jeunes yi jeunes yu bëri ñu ngi fii amoon nañu lu ñu liggéey yaakaar ne mënuñu am lu ñu liggéey ñu xaar lépp ci état alors que am na ay opportunité état su ma déggee ndaw naan état defaluma dara dama naan il n'a parce que eh, boo nekkee ndaw ma dugal la école yaa xam sa njàng fu mu yem niveau bu mu mënta yem rek déjà état euh, euh, teg teg na mi ngi mel ni rek ku teg sa tànk ci benn escalier mbaa xale buy jàng dox nga nga jàpp ci loxo di ko jàpp ba mu ba mu mën a dem ba nga mën ko yónni mu dem. kon nag niveau bu mu mel mu niveau élémentaire moyen secondaire universitaire. état man euh, li muy def noonu formation bi accompagné par les partenaires privés yi am ñoo xam ne a des écoles privées à les à les niveaux mais yooyu boo ko amee euh, état nag yeneen opportunité mi ngi la ko ubbil y a des centres de formation par professionnel y a des partenaires comme USAID ak yeneen état loolu dafay dafay dafay teg ay ay ay kii yoo xam ne yow jeune bi yow yaa war a mën a euh, xool ne man lii laa tollool man lii laa bëgg a def mbay ak sàmm ak leneen fan fan laa mën a teg mbaaga laajte renseignement ñu ne la ñu tegte la teg la ci yoon man nga dem ba nga xam ne ah, da nga yaakaar ne ah, alors euh, bu ñu la neetee kaay jël kii poste état sax da nga naan déedéet man soxlaatu alors que foofu euh, jeunes yi maa ngi leen di ñaax vraiment di leen féliciter fii nag baroon naa fa mën a wax lu bëree bëri bëri mais damay joxe témoignage ci ci kii man dama ko bëgg a jël modèle xool parce que am na am na jeunes yoo xam ne man envoyé naa leen euh, euh, au niveau de El Hadj euh, Abdou Aziz au niveau de l'antenne de Mbour ma koy féliciter xam naa aussi kooku il m'a il m'a mais kii li ma gis Keita xam naa li mu jàng xam na ko dama ko noonu wax jógal mu ne noonu wax du ma wax yaay wax li mu jàng xam naa ne maîtriser na ko. école boo xam ni maa ngi ko créé depuis 2002 donc avant j'étais professeur d'informatique. pendant dix ans donc euh, depuis 92 donc maa ngi ci formation professionnelle donc Hôtel-École Abraku c'est une structure familiale donc mu ngi dox depuis boobu depuis vingt vingt et un ans maintenant que je suis là derrière la chambre de commerce donc mu am une situation nouvelle bu nekk au niveau du pays c'est-à-dire euh, il a été décidé que n'importe qui ku bëggati permis de conduire il faut nga passer par les auto-écoles tellement il y a des accidents donc mu nekk un surplus donc de candidats pour les auto-écoles donc c'est pas encore appliqué mais ça ne va pas tarder actuellement situation bi ñuy vivre depuis Covid-19 mooy les limitations limitations yi ñu appliqué woon ci Covid bi mooy dox ba léegi donc si on sait que man de mon côté daan naa dugal par mois par exemple 400 à 500 personnes pour le code même chose pour la conduite à l'examen maintenant on est limité à cinquante cinquante tous les 15 jours donc ça fait cent alors tout le travail bi ñu doon def depuis 21 ans donc un travail d'incubation muy tous les investissements qu'on a fait donc euh, le fait de bien faire notre travail pour avoir la clientèle fidéliser la clientèle on n'a plus les possibilités de les évacuer donc ak euh, cette formation là donc may may euh, féliciter donc initiative bi di remercier Chambre de commerce qui est un partenaire depuis très longtemps di remercier monsieur le représentant de l'USAID di remercier surtout nos formateurs étant euh, formateur moi-même je sais que c'est très difficile d'avoir une classe avec des niveaux différents soyez-en remercier donc pour revenir à mon projet Donc, qu'est-ce qu'il faut devant cette situation Il faut élargir. Puisqu'on ne peut pas changer les décisions de l'État, l'individu est formé, mais il ne peut pas se présenter n'importe quand. Il faut élargir. Comment élargir Il faut avoir les moyens d'élargir. À mon niveau, ma secrétaire est monitrice agréée comme moi, avec une carte professionnelle, donc qu'elle n'utilise pas. Donc ce que j'ai décidé, la mettre à, la place, à ma place comme déclarante responsable, je reste directeur de la structure et j'ouvre une autre structure où je serai directeur et déclarant responsable, avec des moyens accrus. Parce que là où on va, avec les réformes sur le permis de conduire, les auto-écoles devront être régularisées. Un assainissement sera fait au niveau des structures de formation, au niveau des moniteurs, même au niveau des évaluateurs, au niveau de l'État. Donc, il faut avoir les moyens, donc le cadre, le professionnalisme pour pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est de ça que je parlais. C'est l'incubation que, que j'ai faite depuis 21 ans. Donc, le matériel, s'il est présent, les compétences sont là, la pédagogie est là et la clientèle est là. Donc, je trouve une opportunité euh, extraordinaire avec ce programme pour pouvoir m'élargir, libérer ma sœur en lui donnant une structure qui fonctionne déjà depuis 21 ans et qui marche bien, allah Et je sais que de côté, je peux faire deux fois plus que ça. Parce que je un carnet d'adresse donc qui me permettra de faire ça. Grâce à Dieu. dina leen permettre ngeen mën a réunir seen dossier yooyu noonu soo ko réuniree ñun daañu wax chambre bi ñun ni ñuy liggéeyee duñu wax entrepreneur bu nekk jóg defal sa dossier déedéet dañuy wax chambre bi na def comité chambre de commerce moo leen gunge pendant juróom-benni weer chambre de commerce mooy xayma ci Thiès ci Tivaouane ci mbuur dossier yi mu jàpp ne dossier yooyu pare nañ chambre bi jébbal ñu liste nañu ah ñun kat ci groupe bi ñu am ñii lañ yaakaar ne tey mën nañoo dem ci financement yi boobaa ñun ñu jël ko sama équipe jël ko def ci jéego yi mu ci war a def donc loolu laa bëggoon andi euh, leeral dinañ fi dinañ ci jokk dinañ ci jokkalante ak chambre bi ci ay fan yu néew pour ñu mën a jàll ci étape boobu noonu donc képp koo xam ne am nga besoin de financement commencé liggéey ci loolu noonu dajale kayit yi nga war a dajale. képp koo xam ne aussi am nga historique am nga comptabilité même su fekkee ne du du comptabilité certifiée mais même su fekkee ci cahier nga koy bind wala même su fekkee ci Excel recette ak vente laaj ñu leen compte certifié wan leen ñu rek ci at bi ñu génn su ngeen ko munee ñaata ngeen dépensé ñaata moo dugg ci seen activité. pépp bu ngeen ko amee ci kayit sax baax na commencé leen ko dajale teg ko de côté su ngeen xamee aussi li ngeen soxla parce que am na ñu bëri ñu fi wax naan non am nañ ay besoin de financement soxla nañ nii financement la ñuy xaar mais besoin boobu noonu il faut balaa muy dem ci banque bi dafa war a leer c'est-à-dire que su fekkee ne dangay ngay laaj 1 million 100 mille da nga war a wax 1 million 100 mille 110 mille francs yi ba ci ñaar dërëm bi suñ la ko joxee ñaar dërëm bi fu muy dugg donc donc détaillé leen ko au minimum au maximum bu mu leer boobaa ñun dinañ envoyé fichier bi dinañ ko envoyé chambre de commerce ñu renseigner ko suñ ko renseigner ñu jàll ci beneen étape bi. naa tëj kàddu yi rek ci euh, ci sant euh, sant bu baax euh, entrepreneurs yi comme ni ma ko waxee woon sànq parce que ce programme est exclusivement mis en place par l'USAID au profit des entrepreneurs. donc euh, comme ni ma ko waxee sànq bu bu dul woon entrepreneur yi programme bi du am donc ñu ngi leen di sant bu baax ndax dafa yombul nga am sa activité bien vrai que boo amul formation bi mu bi war pour nga am financement du yomb mais li muy laaj mooy nga mën a comprendre loolu waaye boo ko comprendre itam mu jaral la ay sacrifice mooy comme ni nga ma ko waxee sànq ngeen bàyyi seen activité ñëw mën a suivre neuf modules donc ça c'était pas évident donc ñu ngi leen si sant donc di leen delloo njukkal mais itam di leen ndokkeel ci parchemin yi et comme ni ma ko waxee sànq di di ñaan mu ànd ak barke ba ay financement topp ci ba activités yi gën a euh, gën a yaatu mu nga xamante ni bu ñu dajee ku ci nekk da ngay am plaisir taxaw di wax li nga xamante ni formation bi dimbale na la ci pour nga mën a am financement itam wax financement bi fu mu la yóbbu ci sa wàllu activité itam ngeen bañ a fàtte rôle bu am importance ba nga xamante ni am ngeen ko mooy li ngeen am as néew ci xam-xam dafa war a permettre itam ngeen inspirer jeune entrepreneur yi nga xamante ni dañu bëgg mel ni yéen parce que loolu itam dafa important yomb na peut-être ñu mel ni ñun taxaw di wax jeunes yi da ngeen war a entreprendre mais message bi bii gën a ni muy gën a porté mooy bu fekkee ay entrepreneur ñoo taxaw di partager seen expérience donc loolu aussi je pense que c'est important Euh, beneen kàddu cant bi euh, ñu jagleel ko chambre de commerce donc bu ñu nee chambre de commerce nag dafa yaatu donc équipe de gestion bi ci la bokk donc président ñu ngi lay sant di la masawu toogaay bi donc madame Sangaré moom mooy morom mooy borom yëf yi waaw moom ak son équipe <laughs> donc euh, bas nag laa ci gën a miin waaye équipe bi gën na yaatu loolu waaye bu ñu nee chambre de commerce itam experts yi toog ci lañ bokk. sànq wax nga ma madame Sangaré wax bu am solo def naa am na ku ko wax ci participants yi mu nii c'est vraiment très rare ñu ñu gis inspecteur de travail buy formé parce que li ñu xam ci inspecteur de travail boo amee contentieux ak sa fi ngay liggéeyee ci ngay dem ci ñoom wala boo amee loo soxla ci information ci wàllu liggéey mais c'est très rare ñu gis inspecteur de travail buy formé ay nit et donc je pense que li muy wane mooy c'est important pour ce genre d'acteurs qui descendent sur le terrain ça va permettre à l'État n'est-ce pas ñu gën a yombal le travail de formalisation ndax ñu bëri ñu formaliser wu seen activité c'est parce que ils n'ont pas la bonne information et donc je pense que c'est important donc ñu ngi ñu ngi leen ci sant bu baax di ci gërëm di sant bu baax monsieur Thiam ak monsieur Silva je pense que ñoom ñoo représenté tous les autres experts ñu doon accompagner les entrepreneurs au cours euh, tout le long de de leur cursus de formation donc vraiment euh, sant bu baax ñi nga xamante ni ñoom lañ fi teewal mooy le programme donc wax naa ko sànq maa ngi fi teew ak samay collègues Pape Ba mi nga xamante ni liggéey bi eh, ci responsabilité am la nekk moo koy superviser ak équipe ñu mën ci lim Arona bi ñu àndal. mais di sant bu baax aussi suñu jigéen Adja ba bi ñu àndal parce que moom mooy ñi mën a dimbali ba bu ñuy rendre compte waa USAID. ñu mën leen wax ni entrepreneur yi kat formation bi am na jeexital bii ci ñoom parce que ku xool formulaire di nga gis ni ku ci nekk jóge nga ci point bi dem ci beneen point bi donc ñu ciy profité di ñaan rek ñi nga xamante ni remplir guñu formulaire bi ñu mën ko remplir parce que loolu mooy mën a yombal suñu liggéey mais loolu mooy mën itam ëllëg bu ñu bëggee USAID jox ñu yeneen moyen pour ñu mën ak yokk ni ñuy dimbali entrepreneur yi ñu mën ko dimbali parce que daañu xam ni seen alal bi ñuy jox fi ñu koy dugal amal na njëriñ askan wi amal na njëriñ entrepreneur yi donc loolu daal mooy sunu dernier appel di terminer di waxaat encore que collaboration bi dafay doog a tàmbali parce que ñun li ñu bëgg mooy ku ci nekk ci yéen am financement ba mën a porter le message wax ni kat ëllëg koo dajal nga ne ko formation bi kat fii la la mën a yóbbu loolu mooy sunu yéene yal na ko yàlla mottali donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di ñaan yàlla yal na yàlla defal ñu jàmm ak sutura. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. di rafetlu toogaay bi ak di mastawu toogaay bi yàgg bi ñu jóge waa Mbour ak ak ak waa Tivaouane ak nekk Thiès vraiment que di remercier itam équipe USAID di remercier suñu consultants yi nekk fii vraiment que ñoom jàpp nañ ci formation yi. vraiment waa USAID que euh, di di remercier bu baax a baax Pape ndax vraiment que bi ñu egsee ba fii moom moo ci jàpp depuis seen chante lañ ko xamoon bi ñuy ñëw fii chambre de commerce en 2010 moom mooy njëkk defar formation gratuite avec seen chante boobu ñun ñoo di génn suñuy poste di former les jeunes formation yi ñu fi gis yëpp ñuy former jeunes yi à cause de Pape Ba ak équipe ñoo tax ñuy former ñu am. dëgër laay ak fit di former jeunes yi ndax dañu doon ñëw fii par cohorte de cinquante jeunes ñu leen di former ñun ñu doon génn suñuy poos di joxe pause café yi moo tax vraiment ñu ngi koy remercier ci loolu di ko yëgal Soumaré vraiment que moom tam bi mu ñëwee ba léegi vraiment que ñëw na fii plusieurs fois pour di ñu accompagner di ñuy ak équipe USAID yëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier nag participants yi ndax ñoom yéen la ñu war a gërëm ndax bu ñu leen wooyee ngeen ñëw am nañu seen moroom yu bari liste bi depuis deux mois si ñu doon liggéey mu damaa liggéey liggéey ba sonn jox ma madame Sangaré mu liggéey bi liggéey ba sonn ñu sélectionné entrepreneur yi di woo di leen wax ñëw leen ñu former leen am na ñoo xam ni dañoo abandonné am na ñoo xam ni ñëwuñu am na ñoo xam ni ñëw nañu mooy yéen ñii nekk fii vraiment yéen la ñu war a gërëm ndax nit boo ko woowee ni ko kaay ñu jox la xam-xam mu ñëw déglu la yàq temps surtout entrepreneur temps c'est c'est de l'argent di toog ba neuf modules yi dafa metti vraiment yéen nañ leen remercier bu baax a baax fi may tàmbalee rek ak fi may euh, fii sumaaree yam rek laay commencer pour affaire financement affaire financement dafa compliqué c'est pas facile moi je pense que ñu ko Pape ba expliquer moi je pense que c'est facile ku si góor góorlu xool ñëw approché wu waa Mbour def benn équipe waa Thiès def équipe ngeen jàppalante seen biir ñëw chambre de commerce moi je pense que ñëpp nañu am financement moi j' espère que bu ñu defee équipe force je pense que ñëpp nañu am financement ndax financement rek koo toog ñeneen ñëw ku ne am nga sa expérience mais bu ñu toogee def benn synergie équipe waa Kortu euh, Thiès toog waxtaane ñëw chambre de commerce bu leen bàyyi mukk ñu chambre de commerce ñun ils sont suñu porte ouverte saa yi bu leen bëggee da def benn comité boo xam ne yéen waa cees yi ñooy ñëw organiser ko di ñëw du tàpp suñu porte ni lii la bëgg bu boobaa ñun ñooy organiser xool ku manqué le dara ñu dem wutil ko wala ñu orienté la vraiment ko loolu man je pense que bu ñu ko defee financement yi dina am bu dul 100 pour cent itam 90 pour cent dina am waa Mbour def noonu waa Thiès def noonu première yéen a njëkk première. Euh, corte yi je pense bien que bu ñu defee noonu je pense bien que dinañu am financement ndax man financement fii dañ ci doon liggéey ba ay 4 heures du matin ay 2 heures du matin avec la avec place yi prix mais ñi doon liggéey ba sonn am nañu ay 90 millions yoo xam ne fay nañu amul nag pourcentage ñoo xam ne amuñu woon mais ñi doon sonn ñu taxaw leen chaque jour vingt 24 heures sur 24 ñu ñëw taxawuñ am nañu financement loolu nag laa bëgg ngeen ngeen def ko. di ñëw bañ a bañ a toog rek bu ñu leen woowul doon ñëw mais da ngeen di ñëw foo ngeen venir ngeen ñëw tàppe suñu porte def équipe force ñu mën a xool lan la ñu mën a jàppale ku nekk jàppale sa morom ndax entrepreneur bu nekk am na benn problème boo xam ne entre sa morom entrepreneur mën na ko rek bu ñëwee ñu toog vraiment que financement yi 90 pour cent mën nañ ko am vraiment di remercier yëpp di remercier consultant yi di remercier waa HUD ak équipe bi vraiment ñoom tam def nañu effort. dañuy voyage dem Mbour dem Tivaouane madame Sangaré bàyyiwul benn effort boo xam ni ba affaire bi réussir nii je pense bien que ni ñuy remercier ñëpp merci beaucoup